siisam kenn mënu ko cee laaj juróom-ñaari dërëm keroog ba mu defee passation de service ak président jomaay keroog la responsabilité am jeex loolu li muy wuñi mooy mooy gàcce ngaalaama pare naa defuma benn jéyee am waaye bu defoon jéyee kon duñ def passation de service ñi ciy wax ne nag am na lu xew diggante l'ancien président le nouveau président ak premier ministre ni déggo bu xóote ci am uuteeg la ñu wax ca kaw ñii di ko tuddee protocole Cap Manuel ñi naan bàyyi soo gi yow xam nañ la ci médiation yàgg ngaa jëflanteeg président yàgg nga wax ni Ousmane Sonko sa doom la. Mm-hmm. ñoo na seet si la benn du ñaar tey yaa ngi amee taxawaayu opposant xam naa loolu dañ ko jeexalee xam. Mm-hmm. lan mooy sa position jamono jii ci langue politique ndax dañuy jëm ci ay élections législatives ou pas mais déjà ci lii ñuy wax nii ndax am na loo ci xam. ndax am na loo ci dox. man man déggoo bu xóot dox seen diggante man. spectateur la nga ne bokkul ci opposition bokkul ci kii waaye dama ne la ki taxaw fële ca tribune ba ca kaw di seetaan football bi kooku du du tirer du contre du contrer ñun man dama toog di seetaan xam nga man fi ma toll hmm. li olof di wax ne mag mat na bàyyi cim réew kii gis Lamine Gueye gis Senghor gis euh, Ablaye Wade gis Abdou Diouf gis Macky Sall gis Diomaye ah am na lu mu ca jëlee. moo tax ma ne ndax ñiy wax ne am na lu dox seen diggante looy dëggal la wala. ñooñu waaw du ma ko exclure aw ma nag ay éléments yu ma may ma affirmer ko. Ah. mais pour man lu jaadu la waxuma nag ne am na mais jaadu na. mi mhm. ngi mel ne rek nga mi ngi taw ci biti ne tooyu ma ci waaye jaadu na mu taw parce que mi ngi doon xiin ayca jërëjëf ñu daal di jàll ci beneen euh, thématique bi nga xamante ne moom lañu fas yéene waxtaanee euh, mu ñeel euh, la déclaration politique générale de Sonko fële ci assemblée nationale mu juróon fi coow nag. Mm. entre moom ak député yi. Mm. ba finalement ñu ci ëpp ku ci mel ni Doudou Wade ne règlement intérieur bi nga xamante ne moom moo nekk biir assemblée te ñu defoon ko ginnaaw bi ñu supprimer woon le poste de premier ministre baaxul dëppoowul ak yoon. Euh, mu ne dañ ko war a soppi euh, boobaak léegi mu juru coow dinañ ko fa def duñ ko fa def dañuy dissoudre assemblée bi yow sa jàngat lan la ci loolu. waaw mooy toujours même chose bi rek. Mhm. maanaam euh, Pastef tey ils ont l'exécutif en mhm. les cinquante quatre pour cent même bu doon bu ñu jëlee jëloo cinquante quatre pour cent bi faram fàcce ko duñ am lu ëpp waaye loolu mën nañ ko teg fee ndax yaay beaucoup d'apports l'apport de Wade l'apport de Karim l'apport de l'apport de bon nañ teg loolu fee mhm. mais ils sont toujours minoritaires à l'Assemblée Pastef est minoritaire à l'Assemblée loolu réew mum xew doo gouverner nu la neex boo gouverner nu la neex parlement bi bloqué la mënul dissoudre le parlement. mënu ko mënagu ko. ah li nga wax loolu. fa mu koy manee jotagul. fa lay jot. loolu seetal am na ñoo xam ne c'est des spécialistes euh, de la constitution et des lois parlementaires wax koog ñooñu man principe bi rek laa lay wax du ma la dugal ci ay faram-fàcc. am na ñu ne euh, bañ leen dugalee biir assemblée euh, en mois de septembre ca lañ commencé doon député. te bu ñu yeggee septembre le président Diomaye mën na tas bi lay assemblée lan nga ah. ciy wax. Ah, déet man du ma gisaane. Hmm. loolu bàyyil ba jot. d'accord waaw ah. xaru tabaski. Hmm. bésu tabaski lañ koy ray boo boobaak léegi. Euh, ma ne xaru tabaski bésu tabaski lañ koy rey waaye duñ ne suba la tabaski comme suba la tabaski nañ ko rey tey déedéet bu suba. d'accord léegi lan nga xalaat ci déclaration de politique générale bi polémique bi fi amoon. waaw diggante Ousmane Sonko ak euh, assemblée bi. ana déclaration yow lan nga ci xalaat ana amagul dana ami hmm. mhm. loolu constitution bi moo ko wax. d'accord. yàlla na xanaa buñ demee ba ne comme amul majorité bi comme ni nga ko waxee nii nguur gu ne li muy bëgg mooy buñ la falee nga mën a nag doxal li nga xam te mooy yónni askan wi. Hmm. buñ yeggee ci sàkku ni nañ ko dissoudre xanaa yàlla na. ñoom am na lu ñu mën a def loo xam ne moo gën a yomb lool. mooy mooy dañuy def référendum liñ bëgg lépp ñu def ko ci ñu ñuy wax way uno mu jeex. loolu mën naa yóbbaale lu ne. ci diggante bi xaj na fi. Ah, référendum mën nga ko def xam nga amul kii amul parti politique amul dara buy unoo rek la mën nañ koo def tey dogal ko tey tey dans quinze jours référendum bi am te loolu mën naa régler lu bari xanaa xamu ne référendum mën nga cee lem lu la neex tey Sénégal bu ñëwee dañoo bëgg mu ne royaume bu ñu defee référendum majorité bi ne wuy rek mu nekk royaume oui dafa mel ni du option bi jamono ji. d' accord mais dama wax leen la. loolu yëpp xam nga wax nañ ne mënaguñoo euh, dissoudre assemblée bon mënaguñ ko mais bes buñ ko mënee sax est ce que danañ ko def. lu leen koy teree def. déedéet parce que dañ koy def gën a ñàkk su fekkee ne 24 la ñu amoon ñu am 18 te bu boobaa. majorité boobu mën duñ ko dissoudre il faut ñu wax ak ñoom. yow pour yow majorité bi di nekk à l' assemblée nationale nga xamante ne APR benn bokk yaakaar ñu ci ëpp su doon wóor na leen ni suba bu ay législatives ñoom ñooy amaat même majorité bi dañ fi nekk di naan non du ñu nangu ñuy dissoudre ba ñuy doon bëgg dugal benn. disposition boo xam du may même président de la république mu mën a dissoudre assemblée nationale. demal fu la neex demal ci jeunes yi nga xam ne. ñoo nekkoon ci mbedd mi di taal di lakk naan naan mu sell meeg mu kii meeg yooyu yëpp nga dem laaj leen ndax si sont satisfaits ou non seen insatisfaction boobu mooy jur loolu waaye ñoom li ñu waxoon buñ ko defoon man sax dama leen di wote mais cette même jeunesse euh, ñi nga xamante ne euh, ñoom ngay wax ni ñoom ñooy wax nañ leen may temps ñu doxal ba ci kanam yaakaar nga ni ñi fal barki démb boo njaay jomaay bu ñu demoon ci législative dinañ ko xañ assemblée bi sa que assemblée wala ay député wala moom am fa majorité mooy war a mën a tax li mu namm ci liggéey bi mën ci réew mi mën koo liggéey. ñu nga loolu xam nga nu mel. Hmm. mi ngi mel ni nga yoon sax wax na ko mu ne duggal ci sa loxo sa loxo ci pax jaan màtt la boo ko fa duggalaatee doo jullit. loolu mooy li dal li dal euh, xale yooyu. mais ñoom nee nañ jaan màttagu leen. déedéet loolu yooyu yaa leen ko bëgg a wax rek xaw ma da nga am loo bëgg a gérer. non non du tout. non xëy dafa am loo bëgg a gérer ak régime bi parce que loolu lay niru. déedéet cheikh bi di di dañoo bëgg a xam rek. parce que ñoo xamante ne bi ñu leen falee yàggul. ah oui kon yow da jàpp ne daal ñii ñu fal nii euh, bu ñuy wax ni dañoo am majorité bi absurdité la. man de yaa ngi ñëw fi fekk ay ni di liggéey ñëpp ay jeunes lañ. waaw fekk na fi ñu ñaa ngi liggéey. Mhm. waaye léegi ma leen jox loon liggéey ni ñuy def dañu dem toog ca kër ga di xoole loolu rek waaw ah dama ne. Mhm. alaa kulli xaalin xale yi fa leen doon romb ba tey fa la ñu romb. ñu ndeysaan ñi ngi teg ay saaga ay dàll ak ay nangam ci mbedd mi ci naaj yi naaj yi kaw fuur mu ñëw seen kow soo ba jënd billaay sa naa leen di romb sama rongoñ wadd waaye ñoom ndax gënuñ laa xam ni cheikh bi àdduna kenn mënu koo defar ci benn fan te ñi ngi soog a yegg si olof ñu ne mm. ku xiif yàkkamti ne raxasu leen ñoom dañoo xiif yàkkamte nañ ñu ne raxasu leen te añ. mais ki leen dugal ci situation boobu du ñuy soog a yegg si. ñii transition la ñuy assuré gum bañ yegg ndax yaa ñu wax sànq ci tàmbale gi. laa yaa une marche ni ni deux ans nañ leen may fii ak deux ans gën kaa gàtt. yaa une pouvoir. marche concandée la. gars yi takk nañ seen i bagages pour que bu concandé xaree géej gi ñu jaar ci dem te xamuñ ne du yi du question jaar dem. ci géej gi jéeri ji mën nga cee jaar dem waaye question nga dem dugg mooy affaire bi donc Kunkande wax na lu mu mënul ñii itam wax nañu lu ñu mënul ñoom kay dañoo waroon a wax ne ah euh, bu ñu waxoon ne euh, Sonkoy Kunkande Kunkande mooy Sonko ci man moo gën a aw sax ñu naan son koy Diomaye ah, ndax lan waaw parce que ñoo bokk langage bu ñu utiliser ñoo bokk wax ju ñu wax ñoom ñaar ñoo ne dañuy xar géej gi ku ci neen kii naa ne xar dañuy xar géej kii moo ne danaa xar géeju état bi kii danaa xar géeju ndox mi kunkande waaw ñaari kunkande la te loolu rek nga mën a eh, Sonko. Sonko yi jub Sonko yi kunkaande Sonko. yow depuis bi ñu toog ba léegi gisoo dara man boobu slogan bi ñu toogee kunkaande yi Diomaye Diomaye eh, kunkaande eh, yi Sonko Sonko yi kunkaande. ñi ngay tudd de ak kee ngay tudd moom dañoo mel ni yàlla ak yàlla ndax. de du yàlla ñoom ah, ñaar ñëpp dañoo wax loo xam ne. bi ay fee fi comme lan lan la ñu wax. lu ñu deful lan lan lan la ñu wax lu deful lan. ci. sonk du ma wax ne amul kii amul. état de grâce. ah. gëmul nee na amul état de grâce. waaw mu ngi waaw mu ngi ca. waaw ah, ba. depuis boobu ba léegi gisoo ko. Ah. ci góorgóorlu. kon nag baax na. guddeeg bëccëg subaa ngoon yow si si yaa ngi foofu. dama lay laaj. déet naa la bàyyi. ñoo fi nekkandoo ak réew yow toogal foofu rek. ca yow deel wax lool rek. waaw hmm. ah. yow kon na ngaa sonkoy jumaay jumaay mooy sonk. ñoo ko wax de. yow yaa ko wax. man nag ma wax kunkande sonko sonko yi kunkande. mais ñoom yi sénégalais yi ko. waaye waaye li feeñ mooy lii sans kunkande ignorez jamais de sonko kunkande moo taxaw wax lu mënul kenn mënu ko benn doom aadama man taxar géej gi benn doom aadama mënu ko. mais sonko néewuñu day xar géej gi dama ne déedéet. la jaayoon sénégalais yi waaye dama ne. xam nga kur xar géej gi Sénégal dañ ko gëm xam nga benn est-ce que benn Sénégalais weddi woon na Kunkande ne du dëgg. Ah, kan moo ko weddi kan moo ko weddi yow. foo ko weddi. Ah, man xamoon naa ne bi. non non ko. Ah, ah ci biir néeg. xamoon naa ko. ah ci xamoon nga ko. ci mhm. biir néeg. waaye tax waxoo ko. waaye dama ne. Sénégalais yi gëm nañu majoritairement Kunkande gëm nañu majoritairement Sonko. ou bien lépp dëgg la ou bien lépp fenn la. d'accord léegi euh, sa bilan 100 jours yi ku nekk ñëw na wax li nga xamante ne moom nga ci xalaat ak jàngat euh, Sonko nekk premier ministre Diomaye nekk ca kaw 100 jours yi yow boo ko doon jàngat. Euh, man dama lay wax rek li olof yi wax. lan cin bu naree neex. bu waxee xeeñ.